مصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد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 Eh, sunu borom kat moo ni la in sakartum la asidannakum kon na ngeen seere yéen ñëpp ni ak cant rek la cant gi ci yéen la jëm si ngir yéene leen yàlla dolli seen yàlla di leen dollil ndolleen ci guddi yi ak ci bëccëg yi am amma bi nihmati rabbika fa haddis eh, sunu borom moom kum defal xéewal taamu na lool bëgg na dana ko neex nga di ko tudd guddi yi ak bëccëg yi loolu rek moo waral yëkkati gi kaddu ndax daje gi doy na sëkk ab jotaay doy na sëkk ay jëflantil doy na sëkk ay wax kon Serigne Abdou nee na mi ngi leen di nuyu te di leen zayaara jotaay bii di ab jotaayam mi ngi ci tàmbalee jaajëfal mbooleem këri diine yi yi mu bokkal saw jant bu ma nee këri diine yi nag mi ngi ciy jiital sunu kilifa. sunu tegtaluwaay sunu royukaay maam El Hadj Malick dëkk ak moom mu mat nu kilifa jamono bu nekk ñuy jonjoog ak njabootam ñu doon ay tegtalukaay yoo xam ni gis nañ ni réer ak ruur ak réerale kenn du topp ci seen ginnaaw sunu borom dala ko nattoo. bu nu gënee jige ci dëkkandoo ba noppi bokk ak ñun suñ bépp yëngu suñuy tudd këri diine yi moom la ñuy jiital. la sax nag këri diine yëpp mën nañoo dugg ci moom mu yóbbale leen sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooleem doomi soxna yi di ci jiital nag koo xam ni danaa ko tudd waaye mënoon naa ko ba ñu tudd ndax ab jotaay bi jotaayama kër gi kërëma kenn la ci njabootuk sëriñ moor juuf Diatty radiyallahu taala anhu muy sëriñ naa sëriñ Birahim maamam ak sëriñ moor juuf Diatty sëñ Tuubaa mas na leen a wax ni fasante leen ko lële ndax yéen ñaar seen ñaari kër yi àjjana ya bunt ya bu ubbi ko day laalante moom mii maamam waxoon na ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa waxoon na ko maamam kon su àndeek ñun suñu bépp yëngu ci guddi yi ak bëccëg yi ba jotaay bii di am mu fekke ko mbooleem doomi soxna yi moom mii lañ ciy jiital yàlla wéral ko te yàggal ko te yokk ko bu dul limu doon ci kër gi du diggam ak Serigne Abdourahman sama digg ak moom war naa tax fu kër gi yëkkatee kaddu bàyyi ko ca xel lool mu di fi doom di fi kilifa di fi bàyyi di yaakaari taalibe yëpp doy na sëkk tegtal ci loolu doomi Serigne Touba Diouf radiyallahu taala anhu mi ngi ànd ak moom ci biir loolu sëriñ bi nee na mi ngi beral cantu gu dëgg ci xolom njabootuk maam xaar Jóob gi toog albarakatu lil mutabarrikin seede moom bu dee dëgg léeg-léeg day tungóom la muy seere ñëpp di ko gis su ma tuddee maam alaaji malik sama kàddu daanuwul man a joxoñ ak njabootam ñu di ko fekke kon loolu dëgg gu mu doon dëgg ci xolam rekk a ko sabab te maam xaar ak sëriñ moor juuf jatti sunu borom bool leen alaqa kóllëre ak bokk goo xam ni sunu borom mësta wàcce ci diggante ñaari nit kóllëre gu gën a dëgër googu kóllëre wala bokk gu gën a jege googu bokk ñoom ña fi nekkoon doon ko sàmm ba kenn ku ne suñu borom jëfandikoo ci yow coobare bàyyi fi sunuy wajur ñi di ko sàmm xam naa bu baax ni sëriñ daaru Seynabu mi ñuy fàttaliku tey joxoon na ndigal soxna euh, soxna Mbenn Mbàkke ni ko sama kër waxtu wu soppi ko na ko kër maam xaar Jóob xam sama kër gii waxtu wu njëlli soppi ko na kër maam xaar Jóob xam ni sama njëlul kër soppiku na loola nag dundal kóllëre mënu koo féete kaw kon su nu teewee ci jotaay bii sëñ Abdourahmane di yëkkati kaddu tungoom na seere sax yal na ngeen fi yàgg ñëw te yal na ngeen fi yàgg a fekk Serigne Omar ak mbooleem li topp ci ginnaawam lépp seen jàmm yal na ko sunu borom di dolli seeni xéewal yal na ko sunu borom di dolli man day xam naa man na maa leen seereel te yàlla tax nii ak bokk ak diine ak yoon wi ngeen nekk lu ko jëmale kanam doo ngay seen itte loolu mën naa koo seere te yàlla doo nga tax ma di ko seere ginnaaw loolu Serigne Abdou nee na mi ngi nuyu mbooleem njaboot gi moom kër gi ba noppi ci subaak léegi ñu di fi bàggante ay yoon yoon njabootuk sëriñ góoram ak say juuf ñëw nañ fi indi fi teraanga yu yaatu tërëy njabootuk sëriñ Mor Mati Nger ñëw nañ fi indi fi teraanga yu yaatu tërëy daarul moxti kër borom daarul moxti kenn desul kër sëñ mu doo kër sëñ Seex Awa Balla daarul marnaan kenn desul mbooleem ku sëtu ci borom daarul moxti moo xam nga dëkkee daarul moxti moo xam nga dëkkee daarul marnaan ñëpp baagante na tey kër gi ba mel ni kër gi rek ci la xewi xewe kon sëriñ bi nee na loola du ko mën a bañ a seere di seereel nag kadduy cant yu rëy yu jëm ci njabootuk Mame Malick Gadiaga yendoo na nag ñun tey ci njiital seen kilifa sëriñ Mbacke Saw ànd ak sëriñ Daaru juuf Saw ak mboolem seeni bokk Mame Thierno mu sëñ Ablaay mi ngi nuy toog maam Cerno mi féete ndakaaru mi ngi nii toog soxna Aminata mi ngi ci biir ñoom ñëpp ñëw na ànd ak ñun bisub sëriñ daaru bu bii ci biir loolu sëriñ bi cant gi bu ko yëkkati woon jëme ko ci taalibe yi ñëpp da ciy dugg waaye taalibe yooyu dañoo am ay kilifa ak ki jëwrin ak ki njiit yoo xam ne ñoo leen toqi ba nu man lii ñu man tey ci kër gi jiital ci nag sëriñ Abdou Niang mii nga xam ni mook sëñ daaru la woon mook soxna maam Bousso la woon ëtt bii miin na ko wax bisub màggal bu nekk sëriñ Moudou sar mii noon nii la demee ci kër gi xeewali kër gi du nekk ba tey muy ñëw andaale ko lépp lu jàpp ni kër gi gan ñi danañ ko soxla démb la koy indi mu fanaan si fi ngir ku ñëw fekk ko fi loola xamoon nañ ko démb xam nañ ko tey ñu ngi ñaan suñ boroom yàggal ko te wéral ko mu ànd ak sëriñ mu ànd ak rakkam mu ànd ak rakkam Serigne Bàcci Sarr ay xéewalam démb bi ñu koy jébbal Serigne du ci sama kanam la kon loola sëriñ bi du ko mën a bañ a seere di seere itam sëriñ Khadim Fall ak ñi mu àndal ñoom danoo am taw feexi waxtu wu ñuy jël jotaay bi fi la leen di fekk loolee nag seen diggante ak Serigne Abdou ni toll fonk gun fonk bis bi moo ni toll seenub taxawaay moo ko waral moo tax waxtu wu Serigne Abdou di yëkkati kaddu mu fekk leen fii kon sëñ Abdou yaag sëriñ xaadim ak mboolem jàngkati xasida yi nga xam ni bis bi rek leen fi indi sëñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom yëkkati seen mbir sëñ Touba liggéeyloo leen ci xasida yi te taraanga ju ci nit di am yàlla na leen ko ci suñu borom defal ci barkeb sëriñ Touba xaadimu rasul bis bi nag sabab bi bindkat yi danoo wax ni man araxa waliyan faka annama axyaaxu wàlli yu moom ku ko taarixal yaa ko dundal lii nag ci taarixal wàlli yu ci la bokk muy bis nga daje dajale ñi nga am di say bokk ak say wëlëre ak say talibe ngir ñu sax ci di ko ñaanal ak di ko saraxeel nit ku dem mbar saq mënoo ko jariñ lu dul di ko saraxeel ak di ko ñaanal tey jii nag ñu yendoo fàttaliku sëriñ daaru Saynabu ak kilifaam ya fàttaliku sëriñ daaru Saynabu ak njabootam fàttaliku sëriñ daaru Saynabu ak i rakam ci saraxeel leen te yàlla tax waaye ñaanal leen tey ñaan sunu borom nangu ñaan gi kon mboolem taalibe yi mboolem bokk yi mboolem wëllëre yëpp laa wax ni li si li sunu borom digg ci ak bokk képp kuy dem te ñëw ci bis bi moo xam nga agsi moo xam nga ñàkk agsi bis koo xam ni ñëw nga fi li sunu borom digg ci ak bokk sooy dem na yàlla na ko yóbbaale. koo xam ni ñëw nga fi li sunu borom digg ci kóllëre sooy dem yàlla na ko yóbbaale koo xam ni ñëw nga fi li sunu borom digg ci pas-pas sooy dem yàlla na nga ko yóbbaale yu wakkiidu kulli habla hubbi wa xidmati bi man qaada lii xayril maqaamaati bi tey kon nag na ñëpp rafet njortu ni bu dee fay ku dem da nga doyal bu dee ñaan ku dem da ko yóbbaale bu dee cant ko ñëpp diglu ndax dana am sëriñ Abdourahman nee na xolam sedd na bëgg na sag na sagu na siggi na di ko seereel doomi baayam ji di wëllëreem di xaritam bu dëggu ba tax mu fekkee jotaay bii di sëriñ na moom sëriñ Aliyu moom sëriñ Aliyu moom sëriñ Aliyu moom sëriñ Ibrahim moom Baye Sëñ Ndiaye moom sëriñ moom moom Serigne Birahim nee na kon mi ngi koy ñaanal mu yàgg a teewe jotaay bii tan yàgg koo ànd te lépp ñu yàgg cee daje ak ngërëmul Serigne Touba Xaadimul Rasuul bu ko defee mbooleem taalibe yi sëriñ bi nee na na seen xel dal sëñ bi nee na sëñ Touba ngeen doon liggéeyal xanaa loolu doy na sëñ Touba nee Serigne Abdourahmane mii nee na koo xam ni ñëw nga fi ci suba. ba ba ngay dellu sag yëngu ak sag dal jàppal ni sëñ tubaa nga ko defal te sëñ tubaa moom dana ko fay ñemewul bor daa am daa amuk pay yaquudu lii kullama ahwa bi la sababin yaa xayra saa fi saqaa kulli bi sax bi tax si ni sëñ tubaa nee na sunu borom baaxoon na maa defal lu ko soob lu ma soob ci lu dul ma di ko sabablu kon ci suba ba léegi yéen a ngi kër kër yi di feeñal seenu bëgg di feeñal seenu pas-pas li ngeen am lépp ci alal mang ngeen ko andil ko sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di bàyyeeg yàlla ak sëñ tubaa mi tax ngeen doon ko def boo demee ca wadduha walay li sunu borom daa wax ak yonent bi ni ko seereel nii maa ngi giñ ci guddi yi ak yor-yor yi sa borom fàttewu la ta bàyyiwu la kon yéen taalibe yi sëñ Abdourahman nee na mi ngi seereel yàlla ak sëñ tubaa ni fàttewu leen te bàyyiwu leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.